asalaamaaleykum yéen euh, mbokku téléspectateur ak téléspectatrice ñu ngi leen di nuyu euh, kenn ku ci nekk foo toog di rafetlu saa su seen ànd ak seen télévision Yoff Mbollo TV ñu nit di am mbégte saa su ne di jàkkaarloo ak yéen di waxtaan ne lépp loo xamante ne rek dafa soxal dëkk bi waaye du ma wax Yoff sax ni ma koy waxee saa su ne lépp lu soxal daal askan wi ci boppam ñu fas yéene leen ko indil loolu waral nag gis ngeen euh, boobu ba léegi ñu ngi doxal macha allah ñu ngi dugg léeg-léeg ci population bi ñoom itamit ñuy wax seen ay mbëbët ak li nga xamante xamante rek mom lañu bëgg bëgg na ci yenn autorité sax yi nga xamante ñom ñoom ñoo yor gox bi lolu waral rek euh, ngir indi yenn ci ay léral ñu daldi doxantu rek ñew ma fi nga xamante mom moy maire bu Yoff kiñ fi seet si nag du kenn ku dul le premier adjoint au maire ñukoy wax rek euh, Abdou Nar Mbengue nga xamna mom kenn dootu leen ko présenter sax waye euh, monsieur Abdou Nar ginaaw bima la nuyo ma bayila la nga nuyoo téléspectateurs yi. ginaaw bima la fayé

ci biir émission bi woote nga ma la doon wax ni man daal li jaaxal faral di dégg ci population bi souvent ñoom daal lu positif rek la ñuy faral di wax ci seen diggante yéen ak ñoom <laughs> man ni daf ma jaaxal booba léegi déggaguma woon loo xamante ne lu safaano la daal comme ni nga koy déggee ci yeneen collectivité local yi ñuy def ñu lii ñu def na laa ba ñii sax di di di génn di euh, manifester wu et ah loolu de man gisaguma ko yof bi ñëwee ak léegi loolu waral ma lay laaj rek yow soo ñu doon wax ñoom wax nañ mais yow soo ñu doon wax seen diggante yéen maire bi seen relation ak population buy nan la demee euh,

mais lu fekkee li waa dëkk yu bëgg ngay def di dox seeni i la di dox ci li ñu bëgg donc xam naa doo am problème. Mhm. ñun tamit lépp lu ñuy def si Yoff boo xoolee projet bu ñu fi mënti def wala lu ñu fi def. Mhm. ñi mu concerné oo nañu leen waxtaan ak ñoom ne nan ngeen bëgg yi nan ngeen bëgg ñu taxawee nan ngeen bëgg ñu doxale ko. Mhm. ba yàlla ñu siy dimbali boobu ba léegi. donc ñu ngi koy def di ànd askan wi parce que askan wi ñoo ñu ko teg. donc loolu moo tax xam naa population yi gis seen bopp sur la gestion de la commune.

xam nga demal ne bu ñuy bu ñu jëmee élection di joŋoon ku nekk dafa am foo jóg. Mhm. ku nekk am na parti boo bokk yàlla moo def ñu ngi demoon ci Benno Bokk Yaakaar. Mhm. bi yàlla defee ñu gañe yàlla defal nañu sutura ba fi mu nekkee dañ ne bu ñu gañee rek soxlaatuñu xam kii APR la bokk wala kii fii la bokk. wala mhm. donc li ñu tax a jóg rek mooy Yoff képp koo xam ne dénk nga suñu périmètre communal. muy li ñu wax jàmmalaay ba aéroport. jóge fële cimetière Saint Lazare ba si géej gi ñooñu loolu mooy suñu permis communal képp ku fi bokk nekk fi rek ñun pour ñun population Yoff la amul nag population APR amul population PDS amul population la population Yoff moo ñu fal donc bu ñuy daw si askan population askan bi nga bokk si mouvance bi wala nga bañ si bokk loo xew la ñun ñu war si taxaw wala lu ñu war a def donc lool dañ koy def parce que moy suñu cër. Mhm. parce que gars Benno Bokk Yaakaar moñu fal mais bu ñuy liggéey dañuy liggéey pour la population de Yoff. la population de Yoff rek c'est composé de beaucoup de parties mhm. donc incha ñun lepp lu ñu def dañ ci gis ñëpp amul xàjj amul sel mhm. tay keneen ku xewle ñu xamné sax yow bokko ci ñun. fofu dañ fay taxaw parce que suñu ciir la. ku xewle tamit bokk si ñun dañ fay taxaw parce que suñu ciir donc ñëpp daal lañu ñu yemaale si li xam donc moom la def. waaw kon daal lool mom yaakaar naa leer na <laughs> mais monsieur le maire est ce que mën nga ñu wax euh, tout ci rek même bu dé ci tënk sax ci wàllu acte 3 de la décentralisation bi ñu ko fi teralee ba léegi ngi gis ne mu gën a doxal doxalinu maire yeeg yooyu lan nga ñu mën wax ci loolu depuis ñu instauré ko fi ak léegi ak tamit ndax population bi ñu ci gis seen bopp. waaw xam nga bu ñu ne acte 3 de la décentralisation bu njëkkoon ay communes d' arrondissement moo am. mais mhm. commune d' arrondissement amul woon doole bi war. que loo daan def presque ville moo yor sa budget moo yor sa lépp et mhm. mais bu ñu acte trois de la décentralisation poñ bi si ëppoon solo mooy ñoo léegi maire yi ñoo décider seen bopp. Mhm. ñoo fi ne parce que maire Yoff lépp lu muy def investissement wala nangam ak nangam pour bu xësee ba voté budget mhm. moom mooy exécuté budget mooy fay personnel am mooy fay lépp. yàlla nag mun ñu dimbali si foofu ñun ak trois yoo waa Yoff gis nañ seen bopp baax a baax. parce si ñoo si kanam.

Macky Sall moom euh, li nga xamante ne mooy la politique de l'emploi daf ko soxal torop ba mu ne sax yéen euh, ñi nga xamante ne yéen yor mairie yi nangeen ko duggal ci li nga xamante ne moom mooy seen liggéey fexe ba di utal ndaw ñi ay xëy est-ce que yéen tamit loolu si mairie bi fii yéen a ngi koy doxalee ni ko président bëggee. Euh, loolu moom bu leen newoon sax mën ngeen dem si commune yi mën naa défier commune yi xam ne ñoo nekk Sénégal bi mm-hmm. man xam naa ne donc ñun la commune de Yoff sur le plan des emplois li ñu une utilisé amul benn commune bu koy utiliser mhm. ñun actuellement on paye plus de 550 personnes mensuellement te demande de pèse bien mes mots je que 550 personnes te n'y ay doomu yoof offre. bu ngeen doon jël ñëw léegi nag buñ ne yoof tamit ne nit ñi offre ne yoof mooy comme ni may waxee de jàmmalaay aéroport cité nouvelle yëpp si lañ bokk mhm. te ñëpp gis nañ seen bopp ñun gis nañ sur le plan donc de l'emploi li nga xam donc le président Macky Sall digle xam naa ñun waa yoof ñoo si parce que mhm. nous dinañ fay weer wu jot. 550 mhm. personnes yoo xam ne ñëpp fii la ñuy yeewoo suñu permis communal. Mhm. kon daal macha allah ni ko son excellence bëggee yéen koy defee te askan bi tam yaakaar naa gis nañ ci seen bopp waaye kon yéen comme mbir moom tam da leen soxal loolu waral euh, ngeen di gën a promouvoir l' emploi mhm. yaakaar naa looloo waral sax ngeen di jël ba ci ñi nga xamante ne euh, comme yaakaar naa seen maire. yalla dafa defoon ne moom moo yoroon wàllu aménagement du territoire bala ñu koy jox santé kon walu sétal euh, quartier ak yooyu doon na lo xam tam itam da leen di ñor mm-hmm. yakana lool bokku na ci li gëna tax ngeen jël ay nit di leen lo ñuy balé mbéddi ak yoyu té lool moom machallah dañ koy rafetlu mm-hmm. waaye daal dafa am mbir muñ ci dégg nak mu melni dañu né amna na ñoo xamante ne ci ñooñu top nañu lu tollu 5 mois jamono ji kenn fayu leen wa lool moom monsieur le maire naka la démé te yéen yéen ngi fay sa su né voilà donc fofu il faut sa manif benn leeral pour ñëpp xam parce que tey jii xam nga wax naa léegi dañuy fay 550 emplois mm-hmm. euh, loolu ñun bi ñu commencé si tal mbedd yi ak yooyu booba le ministre Abdoulaye Diouf Sarr jëlagul sax euh, collectivité locale booba mm-hmm. dañ ko fal maire rek mu nekk mm-hmm. tourisme transport aérien mais booba la ñu commencé jël nit ñu commencé boobu nit ñi xam nañu dëkk bi mu set mais bi mu nekkee comité local xam ne mooy maire yi tamit yàlla def na loolu gën a yokk foofu dinaa si ñëw tuuti ñun dinañ fay ma ne 550 personnes am nañu kenn weer dafa am benn groupe boo xam ne de cinq à 40 personnes. Mhm. ñoo xam ne mooy ñooñu nga wax ne toog nañ juróomi weer ñu loolu am na. Mhm. mais li ko waral dama bëgg population yi xam ko xam nga ñëpp xam nañ ne waa UCG ñooy affaire mbalit mi. Mhm. ñu moon benn protocole d'accord avec UCG yàlla def UCG bi mu jëlee protocole d'accord bi. mu ne day jël 30 40 personnes yoo xam ne dafay vester à la commune de Yoff ñoom ñuy jàppale set setal bi nekk si dëkk bi. Hmm. ñuy bale mbedd yi. yàlla ne bi ko jëlee. Hmm. ñoom ñu jël ko ñu ñu jox leen les 40 personnes. ñoom c' est pas la mairie qui les paye directement. mais UCG moo leen waroon fay directement. Hmm, yàlla def nag UCG bi mu demee ba si biir mu am si ay ay difficultés. ñoom ñu toog actuellement defe naa ñu ngi seen cinquième mois fayuñu la. mais la mairie pour xam problème bañ a am rek cinq cent quarante personnes yoy versé nañ leen légui ci patrimoine commune signé nañ leen contrat defal nañ leen sen contrat ba maire yi jël na dem ancien les contrat et tout inshallah bala balaa weer wi de ñoom ñëw nañ ba signé ba trouvé nañu port d' ak ñom légui mm-hmm. maire leen UCG ameloon avant fin décembre bi vous vérifier ci ñom maire yi dina leen fay liñ leen ameloon lepp Uh-huh. yéen may nañ leen fe fin décembre ngeen oo leen ngeen laaj leen ndax fay nañ leen wala déet parce que uh-huh. état bi signé naa ko démb ba pare uh-huh. pour ñëw ñu mën a percevoir seen salaire à la fin du mois ak seen rappel oo nañ leen ba waxtaan sax ñoom ba pare ñoom it remercier nañ le maire si jëf li mu def parce que maire mënoon na leen bàyyi UCG ne donc li leen te ba pare dañ leen jël après ñoom ñu continuer sur le projet donc de la commune yemuñu projet bi yem na ñu bàyyi leen fay leen seen cinq mois leen dañ leen di fay seen cinq mois intégré donc ci patrimoine commune bi. Mhm. commune bi tamit on touche du bois yàlla ñuy dimbali bi ñu fi nekkee ba léegi yéen a ngi dégg ay problème di am si maire yi ñu naan fay ñu seen salaire. ñu mhm. naan nangam am nañ trois mois quatre mhm. maire Yoff mooy maire bi nga xam ne chaque le cinq vous pouvez vérifier au niveau des agents chaque le cinq ñu percevoir seen salaire. Uh-huh. ñi ñu ma wax ñëpp sagles nañ ku si nekk jot sa salaire donc yàlla mu ngi dimbali uh-huh. cas boobu rek moo fi nekkoon te ni ma ko expliqué noonu uh-huh. ko au ah, moom xam naa leer na te neex naa dégg xam naa mm. kon fii léegi fin décembre ñoom nañu pare xam ne rek dinañ jot seen salaire incha allah waaye li ma si jaaxal mooy xam nga uh, ndaw ñi comme niñ ne xëy dafa manqué ba dañuy bëgg xëy koo ci woo rek day daw mm. léegi bi ñuy ñëw xanaa yéen leeral leen woon ne uh, UCG moo leen waroon fay parce que ni ñu koy waxee ci mbedd bi on ah, day mel ni mairie moo leen ameel donc xanaa leeralu leen woon yéen mbir bi bu xoolee ñoom ñoom seen bopp xam nga xam nga tey nit bu fekkee problème am na tey ji moomoon problème ak SIAS un dama naan ki ma boole SIAS du ma wax ki ma boole SIAS man maay wax ne am naa problème directement ak mhm. boole woon ak sax donc man ma tudd kooku dama naan rek ma xam moom ñu mhm. li ma la expliqué ñoom xamoon nañ ko parce que mhm. ñoom contrat yi ñu amoon sax UCG moo ko signé woon

ci salle de réunion bi expliquer leen lépp nu mu demee et wax leen donc ni wax nii lañu war a def pour ngeen dugg ci commune bi. Mhm. ñoom ñu d'accord ci ba comme ni ma wax dugal nañ leen. Mhm.

rek dem tëdd di waa xam nga nit ñi moom bu gisee ñu ne mais dem na retraite wala dem nañu waxtaani feneen euh, dafa am loo xam ne tey jii duñ ko comprendre xam nga li ma la woon nii yéen sax dañ leen di invité pour ngeen ñëw suñu réunion bi jàppale ba ngeen jàpp ko le 28 décembre à 16h. ok yéen waa Mbour Yoff Mbour yi parce que ci la ñuy waxtaanee le budget de la commune de Yoff. Oh, xam nga tey retraite lañ demoon Saly. waaw. retraite ànd donc le préfet. Mhm. ànd percepteur. Mhm. dem di waxtane nan lañ mëna moñé mhm. suñu budget. liñ nane par exemple dafa am euh, liñ ñu orientation budgétaire. dañ dem fofu conseil yépp a ñëw ñu tok waxtaan ñaari fan yo xamné dañu tëju demuñu fa da nga doon liggéey doon liggéey ba 19h30 20h. pour rek xool nan lañu ñuy budget bo xamné tay yof gëm nañ ci gis seen bopp. loolu nag la waxtane ba pare ba moom la ñu mool si këyit gi ne uh-huh. donc le 28 mai convoqué def donc adoption wala projet budget 2018. ok gestion 2018 loolu lañ doon waxtaanee mais nit ñi buñ ko déggee. mën nañ uh-huh. fan dañ demoon salé pour tëdd wala. pour d'accord kon da ngeen demoon pour liggéey demoon pour liggéey liggéey la uh-huh. woon pour defar donc le projet budget 2018. comme ni ko yeneen maire bi ñu demee ñu ko fekk suñu naataangoo yeneen maire yi. ñoo xam ne par exemple bu ñu nekkee salle bi ñoom ñu ngi salle ba léegi. loolu moom ku nekk si maire yi xam nga ne donc souvent noonu lay demee maire. Euh, voyage de travail la mhm. mhm. mhm. bi ne donc moom nag ne da ngeen demoon pour liggéey comme ça su ne ni di demee pour liggéey waaye ñu faral ci nguur gi moom dafa am loo xam ne souvent dañ leen koy collé. donte dañuy dem pour liggéey waaye ni ñuy demee anam yi ñuy demee nee nañ léeg-léeg dafay jéggi dayoo trop. fi koppat gi daal li ñu fay financé te dañuy wax ne souvent day xaj na ci askan bi waaye nee nañ dañuy dem mel ni comme ay buur non budget ay pàcc la mhm. dafa am loo xam ne da nga koy def sa biir budget maanaam dafa sa budget da nga ciy budgétiser ne man war naa séminaire wala retraite et tout ça loolu da nga ko ciy def si budget bi mhm. ne par exemple lii kat 5 millions bi maa ngi ko def si budget bi pour retraite sali mais 5 millions boobu tey percepteur mënoo kaa utiliser faneen pour dul retraite sali mhm. maanaam tey xam nga amoon nañ problème comme ni nga wax sànq ak xale yi ah. dafay ñu leen mais tey bu fekkoon ne 5 millions yi rek moo def si budget bi ko génn si biir boobu lu dul buñ defaat donc un virement de crédit. Mhm. mais tey donc loolu moo waral mais nit ñi nañ xam ne nit ñi bu ñu demee service de genre de retraite là. Mhm. c' est pas pour du tourisme mais c' est pour travail li ñuy def nii ba muur ko fa bu ñu ko waxoon nit ñi. Mhm. ni waxtaan yi amee woon solo. parce que am na ñoo xam ne tey bi ñu demee dañuy wax ñu ne déedéet lii war nañ ko yokk war nañ yokk ñi xam ne tey ñoom ñu ñuy dimbali par at. am na ñoo xam ne dañ taxaw ne ñi ñi feebar si dëkk yu bari war nañ yokk lañ fa def nangam xeet yooyu lañ doon waxtaane pour budget mën a équilibré ba xam ne donc bu ñu ñëwee pour waxtaanaat fii du poser problème xam naa le 16 mhm. bu ngeen ñëwee le astafurla le 28. Mhm. Mhm. yéen da ngeen jël kii de budget bi waa dëkk bi xam li doon liggéey lan la. waaw loolu lépp am na solo waaye di nga d'accord nag ni ngeen di demee daal si ay séminaire moom dafa bakkene lool. loolu moom <laughs> di ko nangu. xam nga tey ji non du question affaire bakkene xam nga tey ji séminaire ba boo demee mooy tey ji boo demoon la fa war xam nga tey ji boo demee lenn rek ngay am

mën ni sax dafa am lu bees lu ñu lu ñuy bëgg andi ci mm. wàllu collectivité locale yi ba ci waa ADL mooy agence de développement local mm. mel na ni ñu ngi koy waxtaanee booba léegi daal ak tamit euh, waa ni nga ni ngeen demee woon sa lii dugalaale nañ ko sax ci AMS yooyu comme quoi mm. dañoo euh, mooy association yi ëmb mairie Sénégal dañoo bëgg euh, avant léegi mairie bi muy seen budget yi ak niñ leen koy joxee niñ koy tas tasalee fu nekk ñu dugal ko fa dañoo bëgg ba léegi ñuy commencer waa ADL et tout di leen saytu saytu comme quoi dañuy ñëw di enquête di xool mais pour ngeen di rendre compte aux populations di leen wax lii ak lii nii lañ ko waxee woon lii ak lii fii lañ ko dugal yow loolu ñuy waajal loo ko jàngate xam nga mooy loolu mooy laa la wax ne donc ñu nañu xam nga ñun jamanaat en 2014 mhm. dañ owoon acteurs yoo fi fële ñuy wax hôtel Océan bugguma mhm. def publicité hôtel bi mais fële la woon ñu toog waxtaan ñu ne leen lan ngeen bëgg ñu def ko dans les cinq ans acteurs yëpp dañ invité woon loolu man li may wax ni télé laa ne nit ñi mën nañ topp am mhm. frais yi fi nekkoon pêcheurs yi délégué de quartier yi mhm. association sportive yi xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñëpp mhm. ñëpp xeet boo dem laal nañ fa culture et tout ñooy leen dañ bëgg ñu def fa waxtaanu ñaari fan fa la ñu yenn après liwaat jël quartier yi yëpp ñooy leen quartier bu nekk comité gestion yi nañ leen waxtaane lañ leen bëgg ñun ñu réalité dans les cinq ñoom ñu ne ñu dans les cinq ans bëgg nañ ngeen def nangam nangam nangam nangam nangam nangam ñu jël loolu lépp def ko si kayit at mu jot comme ni ma la bu ñuy dem retraite kayit boobu dañ koy yóbbu. Mhm. ñu ne kat waa dëkk bi waxoon nañu def lii suñu budget lii moo si xaj at mi li ñu defal at mi lii. Mhm. at mi ñëw ñu defar lii at mi mhm. ñëw ñu defar at mi ñu defar lii. boole seex la nga xam ne ba ñuy campagne dafa amoon li ñu naan waa comité local de Yoff dañ dajale woon donc ñëpp lii lañ bëgg mu liggéey yow est-ce que d'accord ngeen si pour liggéey loolu ñu d'accord suñu jox ñu kayit googu dañu boole kayit yooyu yëpp dëxañ ko mm-hmm. donc di àndax ñoom di si liggéey donc loolu moo tax ADM loolu mu wax na wala ADM mm-hmm. donc ñun dañ siy d'accord parce que mm-hmm. li ñu bëgg mooy askan wi dégg ne sant nañ bu baax a baax si li xam ne donc moom la ñuy def parce que li am solo mooy ñun mooy question bi nga jëkkoon posé lépp la xam ne moom la ñuy def si mairie bi. Mhm. population yi ñoo ko bëgg moo tax ñu ko waxee mhm. def population yi bëgg nañ ko wala déet. d' accord kon macha allah kon am na solo xam naa ni yow moom waaw ci ànd nga ak uh, mbir moomu mm-hmm. waaye ba tey ci wàllu uh, promotion de l' emploi comme ci la ñuy nekk ak tamit mairie bi comme ñoom ci doxal askan li ñor askan wi daal moo leen fi tax a ci tënk rek yow noo jàngatee li nga xamante situation bi xewoon Libye loolu yëpp euh, wàllu immigration clandestine indi ko ak itamit ni xale yi di demee daal ba loolu fekk leen fa si gàttal rek yow loolu boo ko doon jàngat. no no xam nga xam nga loolu lépp c'est d'une manière générale euh, sur le problème de l'emploi des jeunes. Mhm. Euh, moo tax ma wax sànq ne ñun de maire yoo ni ñu xeexee ba loolu am. ba ñuy jii ma jël xale yi ñu liggéey. Mhm. bu ko mairie defoon xam naa doo dégg affaire liggéey. non problème je sais pas dégguma ñu ne benn waa yokk gis. Mhm. dégguma ko wala donc boo amee tamit yëguma ko mais li may ñaan mooy suñu naataangoo maire yi fi nekk. wala mhm. yeneen maire yi. ñu ji ma xam ba jàpp xam nga état. le président Macky Sall wax na ko bi pass état mënul jël ñëpp. par exemple tey jii état Sénégal. Mhm. dafa mën a moom wax na sax na maire yi gën a jàppale. Mhm. nit ñi si l' mhm. mooy li ma wax donc ñun suñu budget boo ko xoolee budget bi xam ne donc moom lañ def. waaw naa la si wax ne la projet de budget xam nga mu ngi nii sama kanam. xaaral ma woon la rek donc ñun li ñu prévoir. si <laughs> euh, affaire pour l' emploi pour fay rek. nit ñi nga xam suñu budget bu nekkee. maa ngi lay génneloo kayit yi de. non non non non mais c'est normal parce que dafa am loo xam ne dafa am solo trop ci c'est le rapport. bàyyi ma dem sur les dépenses de xool maanaam budget bi ñu ko xamee dafa am recette ak dépense ah. léegi xoolal. Mhm. Euh, délégué de quartier yi fi ne. Mhm. ñun ñoo leen di fay délégué quartier yoofu yëpp. prévoir nañ si 31 millions pour hein? leen. ok hein? mhm. le personnel bi xam donc ñoom ñoo fi nekk. Il y a un type de personnel. Il y lu ñuy personnel permanent am na lu ñuy wax personnel temporaire hein? mhm. le personnel bi xamné donc temporaire. Mhm. prévoir nañu 140 millions pour faire. Le mhm. euh, personnel bi fi nek ne ne ne nek ño nek permanent. Mhm. personnel permanent prévoir avoir 150 millions pour faire donc ñeneen nañu donc si mhm. budget bi parce que mhm. dinañ jël benn lu ma trois cent ak mhm. quatre millions yoo xam ne boo ko boolee mooy indemnité donc personnel bi et tout mënoon nañ ñëw def yeneen maire yi et tout mais donc bu ñu jël ñun bi ñuy ñëw fii yàlla dafa def comme ni nga wax loolu si première question bi sax mën naa si ñëwaat tuuti dañ ñëw fekk fi benn régime boo xam ne moo gañe woon ñu fekk fi seen ay nit ñu nekk fi

ñun newuñu si fépp mais phase boobu daal loolu mhm. politique mooy mhm. ñu ngi def lu tout mhm. ba donc les jeunes de Yoff mën a am suñu emploi te emploi yi am emploi yi xam ne mooy direct yi mairie topp bokk la yeneen emploi yoo xam ne moom la ñuy créé ko si partenaire yi am emploi yu bëri yoo xam ne dañ koy jël fii yóbbu avec des partenaires yoo xam ne dañuy maye emploi mais wa dëkk bi tamit lañu fay yóbbuwaat te loolu boole ko sax li xam ne donc mën nañ leen ci problème mmh, d'emploi mmh, mmh, ma allah kon dal ci walu bobu day ni ci bay sen wax ba <laughs> waaw xam naa moom kon kenn du leen ci wax dara am na lo xamantene tamit euh, ba tey ci ndodd maire bi lañ ko gal muy walu euh, occupation anarchique bi ci mbedd bi walu aménagement du territoire ordurier yooyu mais ba léegi am na ñuy wax ci mbir mu mel noonu lu melni occupation anarchique ba tey am na ñu ciy kaas

dañoo ñëw nettoyé woon mbedd yeetu li ñu ko fekkee woon am na amélioration mais tey foofu mm-hmm. population yi dañuy ñaan. parce que dëkk bi du maire rek dëkk bi ñëpp a ko bokk. dëkk bi li mm-hmm. ma si bokkee la si yaat bokk la keneen bokk mm-hmm. mais nit ñi dañoo am loo xam ne tey jii comme ni ma wax dañuy tam am benn habitude mbedd mbedd buur la. dëgg la mbedd mbedd buur la donc dañ ko bàyyee buur. donc mu gérer ko mais tey jii da gis da génn si kër wala nga teg lu la neex si mbedd mi taxawaat mhm. si mbedd mi tey bu ñu déggal pis maa nga ko fi kaas naan waa mairie bi naan mhm. ni ñu ko programme yi bëgg nañ ko sax at mi ñu defaat beneen déguerpissement boo xam ne pour gën a setalaat ñuy mbedd mhm. parce que mbedd yi tant que surtout doo xam commune bi lan la def moo tax ñun commune bi boo xoolee rarement la ñuy def autorisation occupation de la commune parce que il faut ñu dem saytu ko xool ndax siyaas mi ñu jox fi ñu koy teg ndax du gêner la population ndax du gêner donc les voies de circulation et tout ça mais loolu dañ ko war a saytu avant ñu autorisation moo tax rarement ngay gis ñooñu système autorisation bi ñu ñoo tek mais ñuy ñaan les populations mhm. ñom tamit ñu jappalé nit ñi si liggéey parce que liggéey bi ñun ñëpp ñoko bokk dëgg la té dëkk bu sété do am la jox sa do du mhm. do waa Yoff gépp la ñuy wax seen yof set na bu salté tim yof gi la wax dëgg la ñu jëkk fofu ñew ci affaire ordure xam nga ordure yi mhm. c'est pas la commune qui le gère directement donc maintenant c'est l'état état bi dénk ko benn institut bu ñu wax UCG mom mu tout ce qui est mbale mais ñu on a des difficultés parce que tay jii maire bi bu jot di nga cotiser

xool na lañ saytoo ñun yoo te pare nañ sax loolu bu mhm. fekkee euh, antal nañ ko suñu budget mhm. ñu ñu demal suñu bopp si mbalin bi ut ay camion ut lépp di mhm. ramasser suñu bopp boobaa dinañ ko mën a gérer mais ak ñu foofu mais phase biñ toll ñu UCG moo ko moo tax plage bi am na ñu fa teg ñuy nettoyé li mooy nettoyé dajale ñoom ñu ñëw jël li ñuy ñaan rek mooy waa UCG gën a set ñëw gën a taxaw si wàllu yoof après ñëw taxaw boo gisee problème la ñu amoon si lampe yi lampe dinaa ñu ne mbedd mi tàkk na mi tàkkul fii leer na fii mais bu nit ñi waxalee dëgg xam nañ ne ñaari ak yi am na amélioration bu baax a baax. Mhm. fekk ñun commune dañ ñëw ne génn nañ si fi ñu daan natt si biir de Dakar. dañu ut prestataire boo xam ne ñoo koy fayal suñu bopp ah. weer wu jot mm-hmm. moom mu ñëw di xool saytu suñuy lamp mm-hmm. mais tamit dañuy wax ne képp koo xam ne donc am nga sa koñ problème mm-hmm. la mairie mairie boobaa donc li si wax dina ko def incha allah waaw kon moom loolu moom yaakaar naa ni yéen kon xanaa seen jaan wàcc na waaye ba tey ci wàllu occupation anarchie boobu lay taxaw tuuti comme sànq yaa ngi ñaax population bi sax ni dañ ci war a jàpp parce que ñëpp alalu ñëpp la daal mm-hmm. donc monsieur le maire est-ce que gisoon ni jot nañu indi ay sanctions boobu comme nit ñi dañoo xaw a dëgër bopp wala wala teg ay agent wala jëlee boo gisee léegi xam na ñu euh, maire bi am na ay jeunes yoo xam ne jël nañ leen xam nga bu njëkkoon dangay jóge jóge APEX un exemple pour ñëw maire yoo mën ngaa def vingt minutes yoon bi léegi si booru marché bi am na ay jeunes yu ñu fa teg ne mm-hmm. leen ñu xool musculation mën a dawee ak tout ça mu jàppale ñu foofa. Mhm. ñu def ay sabot ko. Ah. jël loo xam ne que ñoom tamit ñu ngi xool ñi xam ne ñoo xetal mbeddam yi leen fi jëlee. Mhm. donc sanction fa lañ jëm parce nit ki. Mhm. dañ ne nit ki il faut nga teg la police pour nit ñi mën a dem. waaw donc ñun foofa lañ jëmee pour ñu mën a jàpp parce que lépp ñu bëgg ñu ñëw rek. Mhm. indi ñu naan mairie bi dafa indi lu bees wala comme ni ma concertation avec la population. Mhm. dëkk bi ay rek ñoo fi ne. nit ñi jàpp xam ne donc képp koo xam ne yaa ngi occupé mbedd bi. Mhm. wala kii bi say état def ko da nga xam ne tey du tere nit ñi mën a jàll. wala mën a dem tey trottoir boo gisee benn trottoir par bu fekkee dañ fa teg ay njaay mais nit ñi dañuy obligé dox ci kaw tali mhm. te loolu ay ay ay danger lay indi mais donc nit ñi tamit dañuy gën a sensible par rapport ak li xam ne mais xam ñu jàppale waa mairie bi jàppale mhm. waa dëkk bi mhm. fekk ñun ñëpp bokk pour suñu catal dëkk wala suñu environnement dëkk mën a normal dëgg la macha allah waaye ba tey euh, ci li nga xamante ne moom mooy wàllu terrain wàllu suuf xam nga yéen tamit côté boobu am ngeen ci pàcc comme nit war a tabax fii wala war a jënd terrain ñu dagal ko war a jaay et tout xam nga am na domaine boo xamante ne yéen di ngeen ko ci gérer gis nañu léeg-léeg tam dañuy wax rek euh, surtout am na problème bu mag nag euh, boo xamante ne sax ñu ngi koy wax ci wàllu curkaam hmm. loolu moom xam naa xëy na dégg nga ko wala am na loo ci xam. Hmm. ci loolu wala yéen seen seen seen kii yeggul foofu noonu. waaw xam nga wàllu curkaam boobu ñun dégg rek si am. comme hmm. ni ko population yi dégg ñun waa mel noonu lañ koy dégg. ñun daal dégg nañ ne am na lu essence bu am xamoo yoof moom ko et mais defe naa loolu comme yoof traditionnel la ko sa concerné woon. je pense que kilifa Yoff traditionnel nañ ci oote waxtaan mais ñun la mairie amuñu implication par rapport ak Turkam moom wax fa dëgg yàlla. Mhm. amuñu ci dara loo xamante ne wala xam nañ ko si et tout. Mhm. ni ko population yi dégg lañ ko dégg. Mhm. ñun nak en tant que donc Yoff wa doomu Yoff. bis ba bu ñu taxawee si penc ma xam naa leen si am xalaat mais mairie amuñu si xalaat. en tant que mairie kon amul benn saytu tam bo leen ci wara a def buñ ci def parce que le problème comme ni ma la expliqué. comme dafa am pàcc Yoff bo xam coutume Yoff moko ko yoroon. te ñun tamit óolu ñu coutume Yoff et tout

nit ñi sax ci am ay difficultés au niveau de la commune. Mhm. parce que tey mairie képp kuy tabax da nga war am autorisation de construire. Mhm. mais Yoff traditionnel dafa amoon dérogation maanaam tey kuy tabax biir yof. Mhm. loolu état bi moo ko mayoon yof dérogation. ne par exemple képp ku fuy tabax mën nga tabax doo autorisation mais tey lépp lu jëm cité lu jëm su Nord Foire. lu jëm su Ouest Foire. aéroport et tout ça. da nga war autorisation pour tabax. autorisation bi nag maire mu ko mën a jox képp ku nga xam ne andi këyit këyit mm-hmm. boo xam ne yaa moom suuf si mm-hmm. wala nga am baay mm-hmm. wala nga am leneen lu demee noonu et tout ci pour pour nag loolu boo ñëwee indi sa plan déposé ko urbain urbain indi ko ñu saytu ko ba ne mën ne ko dem visite dama dem visite terrain xool ndax ñu signé autorisation mais bu dul loolu mairie moom li mu man mooy suuf Eh, eh, nu mu tudd jàppale les populations. ba xam ne donc mën nañ tabax normalement dans mhm. les règles de l'art. Mhm. loolu donc mais rôle foofu la ne. moo tax rôle boobu ñu ngi koy doxal. Mhm. di inciter les képp nga xam ne bëgg nga si euh, kër. boy tabax et tout am nga ko. Mhm. nga ñëw au niveau des services techniques de la mairie ñu xelal la fan nga war a jaar mën mhm. autorisation de construire. d'accord té si yéen ki indi autorisation de construire ko ngeen mëna jappalé jàppale dafa ko saytu yoy mais kiko ko wul ba lég lég ay difficulté am ci après yeen no leen di gérer loolu noonu. loolu dafa am ben société bu ñu naan Descos. Mhm. Descos en collaboration avec la mairie mairie tamit day surveiller la zone. parce que tay am nañ brigade bo xamné ne la brigade foncière. ñun dañuy dem. mais bu ñu ñëwee fekk siyaas di tabax dañ nakaan am autorisation siyaas amul ñu arrêté chantier bi te loolu la règle boobu ah kon a ngi saytu ñuy tabax et tout ñëpp am na am service bu fa nekk si biir àll bi di xool loolu parce que mhm. loolu dafa am ay taxes yoo xam ne da nga ko war a fay maire bi mhm. maanaam autorisation boobu ngay am na loo xam ne si maire bi la jëm te population yi moom moo tax ñu ñuy saytu àll bi di saytu ne bu ñëwee gis siyaas di tabax nañ la ko mhm. arrêté SIAS am sa bu ñu wanee autorisation wan ñu la ñu bàyyi ko mu kon mhm. bu ñu ñëwee nag SIAS wane autorisation dañ koy arrêté ne ko nag jaaral maire yi ñu wax la fan nga mën a jaar boobu autorisation li tax maire yi def loolu parce que am na taxe boo xam ne li ñuy wax taxe urbanisme et tout ça yow da ko war a fay mhm. taxe boobu dafa dugg si keesu maire yi donc loolu moo tax ñu seetu àll bi di xool ñi fay ñi fayul wala ñi amul autorisation pour ñu ñëw mën a fay. dëgg la dëgg la macha allah ba tey euh, ah, ma fàttali ne rek ñu ngi toog ak euh, monsieur le premier adjoint au maire di Abdounar Meng am mbégte lool nag. Mm. donc euh, monsieur le maire yàlla def tamit yow mu mel ni yow yaay président zone 6. Mm. gis nañ ni jamono ji dañ nekk ci jamono yi nawetaan macha allah boobu ba léegi jeexagul ndax problème stade et tout. Mm. mais en tant que président boo doon def sa saytu xayma wala sa analyse depuis bi nawetaan yi commencé ba fi mu toll nii nee nañ. quart de finale la jëm donc phase de poule yi jeex na Demba tey boo ñu doon wax sa analyse ci boobu ba léegi lan nga ñu ci wax. waaw foofu naa leen si mais avant ma ñëw damay def mhm. benn bref rappel rek. Mhm. comme ni nga ko waxee woon ñun damay ñëw sur les réalisations yoo xam ne bi ñu fi nekkee ba léegi ma gisul la si quelque. pour wax d'accord les réalisations maa ngi ko doon fàtte sax. waaye xam naa lu la soxal la. <laughs> waaw non parce que. Mhm. yàlla dafa def comme dama la waxoon ne ba ñuy jël commune bi. dafa am lu ñu lu ñu askan wi laajoon. ñu di si félicité bu baax a baax le maire Abdoulaye Diouf Sarr mhm. parce que ba mu ñëwee dafa loo xam ne maire bi na ko am loo xam ne état moo ko mën mhm. mais moom comme yàlla dimbal na ko mu ngi si état bi lu bari ko ba Yoff am na ko mhm. parce que Yoff amuloon stade yaa ngi wax léegi saafara ba naa mu jël stade bi sax pour entraîner leen état Yoff amuloon quai de pêche yàlla na léegi Abdoulaye Diouf Sarr fexe na ba Yoff am na quai de amuñu woon maanaam donc euh, ay place day yéegi ngir place moomu jóg ñu ngi koy defar Mm-hmm. place pencum Yoff mm-hmm. defar nañ ko ba pare réalisé nañ ko waxtaan nañ jëm ba APIX sax na lañ mën mm-hmm. a def ba def réalisation yi Yoff amul woon lycée ah. pose premier pierre bi def nañ ko ba pare ba le projet léegi mu démarré pour ñu commencé tabax lycée lycée Yoff sur le plan de la santé ñu ñëw Philippe amul woon ambulance ñoo fa def ambulance ñoo fa def centre bu xam ne radiologie la hôpital bay nekk si ñoo ko rénover ñoo ko defar et penc place Ndiaw gis ngeen donc niñ ko defaree. Mhm. donc yenen nax yenen yo xamné ne mu ngi si sur le plan des emplois wax naa mhm. li ñu jël si emploi mhm. sur le plan par exemple des secours maladie daaw joxé nañ 30 millions parce que dimbali ko ay malade secours tabaské yooyu parce que

yàlla def ma defaat ma jàllaat président de la justice mais su ma doon wax. en terme de bilan nawetaan yi gën a soof si àddina mooy ren yi. ah bon voilà yaayee ah na parce que mhm. lan moo tax. dañ am Dakar problème fu ñu fubal. bu baax mais tey da ngay gis yéen yéen a ngi dañ leen di wax am nañ journée tey. Mhm. ngeen ñëw jël ñu leen félicité bu baax a baax parce que ñu bari ñu ngi kër. mënatuñu dem stade mais ñu ngi seetaan nawetaan yi xam ne donc moo am yow dinañ gis lii nañ le lendemain nañ ko seetaan ci guddi gi nañ ko seetaan télé bi ngeen di ko teg ba population yi di mën seetaan seen doom parce que loolu gëñ na am loo mais tey jii dañu am problème fu ñu fubale da ngay fubal benn na toogaat vingt cinq jours parce que Dakar dépuytu nawetaan da ngay dem ba fàtte nawetaan xam nga actuellement nii pare nañ suñu quart de finale dinaa si ñëw tuuti yàlla def na xamaguñu fi mu ne kañ la ñuy fubal. Euh, par phase de poule mhm. kañ la fubal quart de finale. Mhm. mën a doon parce que stade bi yëpp benn stade Iba Mar mooy fonctionné te Dakar gépp 15 mhm. zones si la ñuy yàlla de bu ñu tey. ñu yaakaar nañu déwén mën nañu am suñu stade bopp. yow ñu di si félicité donc le maire Abdoulaye Diouf Sarr baax a

yaa ngi si mën a football que ñaari match par jour. Mhm. durée de vie bi donc du yàgg. gazon mhm. ak entretien ñu ne ñu ko def gazon synthétique phase boobu ñu doon gazon naturel gazon synthétique dafa am mhm. ay yu mu laajoon. mais yàlla def na loolu lépp sutura. jàll na ba entrepreneur bi rek moo si def xalaat nañ ne. lu mu tardé tardé avril mai dinañ réceptionné donc les stades pour Yoff te bu ñu ko réceptionné. Mhm. mais Yoff moo si jàpp suñu nawetaan du tardé. suñu équipe phare bi ñuy wax la RS Yoff. Mhm. yàlla mën na ko dimbali moom infrastructure parce que football Yoff mën na fa jóge développé. Mhm. parce que football boo amul infrastructure mënul développé. boo gisee tey équipe yi ay génération foot nangam nangam gën a développé si si championnat na dañu am infrastructure yoo xam ne seen doom yaa ngi ñuy ñaan nag waa Yoff gépp jàpp si pour stade bi pare mhm. ñëpp a jàpp si xam ni bisu boobu Yoff moo ko moom mhm. te Yoff moo tax ñu def ko fi mhm. ñëpp a jàpp si poto à côté ñu ngi fay def jullukaayu Yoff ah. loolu lépp Yoff moo ko moom Yoff nag mooy li ma wax de aéroport à Diamalaye stade boobu pare waxuma mën na ko développer par rapport Dakar ni mu ñàkk woon infrastructure dëgg donc nawetaan li ñu si mën a wax mooy di sant ñëpp parce que football nañu gis nañ ne violence bi wàññeeku na. Mhm. ñu ngi dëgg rek démb xam ne donc moo xew stade mhm. parce que loolu il paraît donc ñëwee ñëw na ba fekk si population yi ba si quartier bi. waaw loolu tamit ñu koy ñàngu. Mhm. mais tamit may lancer un appel aux populations. ne leen football man dama koy wax ne ñetti résultat moo am boo dem terrain soo ne mën ngaa gañe mën nañ laa gañe wala nga match nii fi jëm nii ay quart de la fa la gën a métti parce que ku ñu dóor nga toog la. ñu populations, nga mhm. donc li les population moi ñu c'est c'est nous dans nous. Mhm. parce que nous ñu ne le monde football wala nous nous wala nous wala nous buñu paré ñoy ñooy ñibisé ñibbise mhm. ku gën a sa terrain ba ne ko sa moroom félicité mhm. encouragé ki ñu and ñibisé donc li ñuy ñaan moy Yoff gépp japp ci mhm. pour suñu nawetaan yi mën a àgg macha allah ci si jàpp mais ci walu batay ci walu organisation ak encadrement ci zone bi yëpp étant président yow ban jàngat nga ci def positif wala amna ay jafé jafé amna ay jafé jafé yo xamné mëna wax né comme parce que nit ki bu dëggee am da ngay wax dëgg. Mhm. wax naa ko réunion waxaat ko wax naa leen. Mhm. am na coo yoo xam ne boo xoolaatee film yi da xam ne membre de la zone yoo ko indi si parce que loolu xam naa fa nga jëm parce que gis ngeen ne. Hmm. parfois da ngeen ay membres ñoo xam ne dañu takk ay bàtt yoo pare coo li suuf dama leen wax ne. Mhm. nawetaan ñun ñëpp seetaan nañ koy at ñu ngi coo bu am si turbine bi rek. si suuf la commencé. Ni suuf la xale yi gis ñu def seen comportement ben bi ñu am fi toog. mais mm-hmm. lance un appel aux membres. kon mel na ni organisation bi des na. des na mm-hmm. mais lance un appel aux membres de la zone pour leur dire que ñom ñoo organiser. Mm-hmm. nañu gëna a nañu vider l'organisation virer à commencer par eux-mêmes. parce que ñom ñoo wax joxe le bon exemple pour ñi ci kaw ba mais mënu ma comprendre nga tak sa badge. sa équipe du football nga dem ne da ngay taxaw si kanam jàmbur wala dégg yàq yi fi jàmbur. Mhm. loolu mooy indee coo yoo xam ne baaxul te loolu si mhm. membre de la zone yi la amee. Mhm. donc membre de la zone maa ngi leen di ñaan. ñu changer seen comportement pour permettre aux supporters. mu bañ a am benn coo si nga xam ne moom la te étant président tamit ndax euh, amul benn sanction boo xam ne dañ koy jël ci zone bi incha allah parce que sanction moom. muy joueur muy supporter muy. Euh, mooy muy joueur muy supporter. staff yeeg ñi yor zone bi étoilé membre de la zone. incha allah dinañ si waxtaan. dafa gu ñu si il faut ñu xaar donc les rapports et tout. Mhm. donc waxtaani xool donc membre yi xam ne ñoo fute. est-ce mhm. tamit liggéey loolu la. Mhm. bu fekkee donc dafa am membre boo xam ne dafa fute wala jalgati. mais ñu suspendre quelques matchs ëllëg doo ko defati. donc loolu incha allah ñu si waxtaan xool parce que dafa gu ñu réunion. d'évaluation bu ñu koy def incha allah ñu si waxtaan bu baax. d' accord kon euh, monsieur le maire kon di euh, nga ko waxee sànq rek dugg nga ci seen ay réalisation mm-hmm. macha gis nañ ni nag mi nañ leen askan bi doon xaare li ngeen leen waxoon kon euh, def ngeen ko mu mel xalaat ngeen def ngeen ko man de dafa mel ni xanaa da ngeen am secret wala lan moo nekk seen ginnaaw par rapport ak yeneen maire yi di am difficulté yi am na yéen xanaa état bi da leen jàppale suuf. Mm. ma ne ko non pourtant li état bi jàppale maire yeneen lañ am. yéen ci yam question question ñoo si yam la am na ñoo xam ne sax ñoo ñu ëppale. Mm-hmm. parce que loolu ça la population li mu lay jàppale. xam nga dafa am loo xam ne moom la ñuy wax ay fonds. Mm-hmm. fonds yoo xam ne état moom lay joxe. Mm-hmm. Euh, yàlla dañu dimbale rek xam nga yàlla bu la dimbalee bu jàppee si li ngay liggéey wala gëm li ngay liggéey donc loolu ma dañu am maire gëm na ne Yoff war nañ koo mën a defar ab mhm. Ablaye lépp lu muy xalaat mooy pour Yoff développé. dëgg la lépp lu muy xalaat muy pour Yoff gën a jëm sa kanam. Mhm. fépp fu mu toog mu ngi jima ut lu dugg Yoff. Mhm. moom lu mu mënti nekk. un exemple tey jii mu ngi si ministère de la santé. mais am na ay projet yoo xam ne pour Yoff la si wàllu santé. te loolu Yoff gi mu ne si gis si kanam si kanam fee. parce que bëgg na.

bu ñu demee ni ba yemal bilan ñu ñëw nañu que li ngeen ñu joxoon bi ñu koy jël fii la woon fii la toll fii la yem boo nag les population vont juger que ndax war nañ ñoo joxaat wala war ñoo joxaat si wàllu liggéey lañ toll ñu liggéey macha allah donc li ñu yoof demandé woon xalaat nañ ne ñu ngi def bay def lu ëpp mais nañu ñaanal rek ñu mën a jàpp ba continuer li xam ne donc moom la ñu moom la ñu yoof dénk kon waaw allah ñu leen koy ñaanal bu mmh. baax waaye dinaa la laaj tamit ci wàllu comme yow doomu yof nga fii nga dëkk fii nga yeewoo mm-hmm. te yof xam na nga dëkku coutume la etu mm-hmm. am na ay ni ma ko waxee rek ñoo seen gouvernement bopp ba ci ni ñuy wax am na ay frais yof xam naa mm-hmm. foofu laay jëm sax ndax ci foofu lañ ko dégg dañ dem ba jamono ji ñu gis ne am na ay de frais yof te ay benn lañ fi doon xam loolu tamit euh, monsieur le maire tey boo ñu si doon wax lan nga ñu ciy wax lu jaadu la wala lan lan moo xew ñun bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi dégg Fray Yoff mhm. euh, li ñu naan Fray Yoff parce que génération la ñun bu ñu yàlla dimbalee bu ñu gudd fan mhm. dinañ nekk Fray Yoff mhm. parce que dañ ko fekk loo xam ne coutume bi moo ko fi teg ñu ne par classe la je crois dañ xaw cinquante six ba ñaata wala cinquante un ba cinquante six ñoo nekk pour le moment les frais mu doon loo xam ne Yoff gépp koy regretté parce kenn masul gis lu mel nii. Mhm. boobu man boobu mu ngi fii doog a fekk ñu ñëw ba même mhm. génération. Mhm. ñii ne ñoo fi nekkoon moo am division entre ñoom et tout. ñun li ñu gënal mooy Yoff gépp a nekk benn. parce que benn ay njàmbur benn lañ si xam fere yi benn lañ si xamoon. maanaam et mais nag bu demee ba li mel nii donc c'est regrettable. ñu ñaar la comme ñoom la seen bis te affaire classe d'âge la. donc ñoom nañu waxtaane rek ba xool nan lañ mën a gérer Yoff. parce bu kenn donc waa maire yi moom moo fal kii wala fal kii mhm. maire yi falul Fray Yoff mhm. maire yi du fekk sax bu ñuy fal Fray Yoff mais nag maire bi day liggéey ak Fray Yoff parce que dafa am loo xam ne tey coutume bi moo ko fi teg wala coutume bi moo ko moom ñun il faut ñu liggéey pour coutume boobu mën a développer wala nangam et tout mhm. mais bu fekkee mel na ni ñu dem ba si biir ñu ne même classe bi deux frères am fii loolu donc mag yof wala njàmbur wala ñëpp war ci mëna waxtaan. Mhm. ba xol nañ mën a trouver une solution par rapport à ça. kon yene yé ngi liggéey ak jamono ji ñaari frais yof yëpp. ah mais lu ñuy def. parce que mhm. le problème moy fi mu nekk nii xam nga en un moment ñun def nañ sa du tok toog ne fi mu nekk na yof waxtaan ba paré ñu xol ku ñu def. Mhm. mais tay ji le problème moy ko si waxal ñu né maire ki la andal àndul ak kii. ñun position bi ñu nekk actuellement mo difficile. mais tay ji dafa am lo xamné

mën nañ bokk baay kii bokk fii kii bokk fële. Mhm. mën nañ bokk yaay kii bokk fii kii bokk fële. Mhm. mais nañu waxtaane comme même génération. nañu waxtaane rek xam ne donc ñoom. Mhm. bu ko pas génération la xam naa leen fi dese sax dootu bari. fekk ñeneen war nañ mën a ñëwaat. mais dañ comme ñoom ñoo fi nekk seen classe parce que àdduna lii lii lii li gën a bon si àdduna mooy li. par rapport ak naan mujjee pousse soxamu mu réer sa loxo. tey jii lii way lay doon ci si si si si si si yow. histoire waaw yow lay bokk classe bii rek moo mën a nekk ñaari fere yow am seen biir. Mhm. parce que ñii dañu aw fii ñii aw fii. mais comme ñi ñaa ngi waxtaan waxtaanee te ñëpp doomu yow rek. Mhm. xalaat naa ne solution mën naa am bu ñu revenir donc si. l'orthodoxie mais bu ñuy changer après le bureau sax. Mhm. nañu waxtaan pour xoolaat na la ñu changer sax seen bureau. mais ñu waxtaan mu xam ne benn kuréel moo fi nekk. mu ngi tudd Fereyo. ñii gis nañ seen bopp ñii gis nañ bu ñu waxtaan ak bu jubóo pour ànd pour liggéey bu fekkee liggéey yoof moo leen tax a. moo leen tax a jóg <laughs> sinon euh, war na dina mën a indi ay gàllankoor. non oh, mais li ma euh, gàllankoor tey je donne un exemple. ma jox la benn exemple bu ndaw tey bu may doon organiser dara suba. ñu ne président Fereyo. nan la ñuy def mairie. waaw on a on a problème parce que tey bu ñii dañ ne parce que kii mooy pa kii ne kii ñu ne maire fii la far boo invité ñu ne kii la far dëgg la mais donc ñoom dañu war a mën a yombalal liggéey bi yoon dëgg la yéen tey jii yéen par exemple yéen tey bu ngeen doon organiser wala ngeen bëgg jël président fara yow bu ngeen jëlee kenn ñu ne kat ah ñii kii lañ àndal bàyyi nañ <laughs> kii wala nangam li leen may ñaan daal mooy yox gi gën a waxtaan dëgg la ñu waxtaan ba xam ne suñuy papa fi nekk suñuy mag suñuy nijaay suñuy bàyyi. dañu waxtaan mhm. ma monsieur le maire xam naa du ma la bàyyi te laajuma la tamit comme yow da nga bokk ci camp présidentiel muy euh, Benno Bokk Yaakaar. Mhm. wax nga fi léegi seen ay réalisation macha allah askan bi doon xaaree yàlla mhm. dimbali na leen ba def ngeen ko. foofu laay ñëwaat waaye ci côté état bi laay wax comme yow foofu nga bokk tey boo ñu doon xaymaal tamit yow sa gis-gis. ci côté boobu ak donte nag ñii ñi ngi wax li ñi ñi ngi wax laa yow loo mooy wax foofu seen ci seen réalisation par rapport donte dégg nañu sax seen euh, déclaration de politique général bu premier ministre bi yàggul li mu wax ki ñi naan fii la jaar ñi naan fii la jaar yow soo ñu ko doon tënkal rek loo ñuy wax ci bilan wu état bi waaw di leen wax ne rek xam nga mooy li ma la li ma la expliqué sànq mhm. xam nga Sénégal dafa am foo xam ne man ni may politique koy bàyyi am na foo xam ne bu ñu fa tolloo mooy li ñu naan xëccoo la Macky Sall le mhm. président Macky Sall day ñëw indi bilan ne man bi ngeen may jox réew mi fii laa ko fekk bi ngeen ñëw fii la xam nga tey mhm. jii Macky am na ay point positif mën nañu wax ne yoo xam ne day ko lu palpable la ñu teg si loxo mhm. xam nga wax nañ sànq am na ñoo xam ne wax nañ bu sécurité familiale xamuñu ko woon ñun dëgg la Macky Sall faxee na ba ñoo xam ne ñu ngi néew doole. li passé am na ko wax mais ñu ngi leen jox même lu mu tuut tuut trimestre bu nekk nga ne am na am nga par exemple juróomi juróomi junni. mais ay waa Sénégal lañ ko jox. mais am ay mais am na ñu wax ne dimbal googu day gën a indi pauvreté sax parce que da nga leen di dimbali après jeex na ñuy xaaraat te defoon loo xamante ne. di dina con continuer daal dinañ si mën a dimbali seen bopp. xam nga je suis d'accord xam nga dafa am ay façon dimbal yu am. Mhm. par exemple xam nga tey jii yow boo dimbali dimbali que la mu siy def moom moo xam nga ni ñuy dimbali mënoon nañ ñëw ku sax moo juróomi junne nga jël man kat naa jël juróomi junne yi xool

yeneen ak yeneen fekk on est pas là pour donc dresser le bilan comme da nga si laaj tuuti rek moo tax ne mhm. nit ñi président Macky Sall dañ ko fal pour 5 ans mhm. en 2019 les gens ont le droit de ñëw moom mu ñëw défendre bilan mhm. ñeneen ñëw s'opposer les sénégal dañ on doit xool fekk nit ki na xol man kat bi ma koy fal fal la demoon tay jii ma jox ben accès suñu mbokk pêcheurs yi nekk fi ñu ngi ay pêcheurs man j'habite le quartier Ndanane sama ay pêcheurs yi ñoo fa dëkk mais nag quartier pêcheur mais dañu gis seen bopp si président Macky Sall parce que tey moto boo daan jënd un exemple un million cinq cent mille ñoom ñu dem si banque yi fu ne dugg nañ fa di leb et saa saa ñu affiché leen et mais léegi doon trois cent mille am moto dem liggéey mais loolu tey jii rek c'est un bilan boo xam ne kenn mënoo wax ne donc loolu baaxul ci dëkk bi ok kon daal gis nga nii daal président ah, moom man daal li ma xalaat man sama gis li mu def daal waaw unanimité wala 100 amul fenn nit ki mhm. man 100 dinaa fexe ba que 70. Mhm. pour xam ne 70 yi mais tey dëkk ko les États-Unis mhm. tu peux pas faire à 100 à 100 amul fenn. essayer donc de dépasser donc les 50 jëm kaw. dina am lu baax. ba ci waa ba ci boobu nga mbir daal ci biir parce que du lépp lañu ñu leeral te yàlla def sax seen euh, maire xam ne moo nekk ministre de la santé jamono ji xanaa loolu tamit di ngeen ci indi taxawaay wala di ngeen ko gën a leeral boo xoolee seen Abdoulaye Diouf avant mu nekk même ministre de la santé ñi xam ne donc ñooy seen au niveau de et tout ça mais mu ngi essayé de envoler ay nit maire ñu ngi envoler ay nit jàppale loo xam ne population ñoo waroon fay pour am carte mais maire jàpp si pour ñoom ñu am xam naa bon ah, waaw xam naa kon moom bés bu ñu ko amee <laughs> dina jàkkaarloo askan bi wax leen yi nga xam ne daal moom moo laxasu ci biir xam naa rek euh, pour mu gën a leer waaye ba tey ci wàllu réalisation président yi nga doon wax comme ci wàllu terre bi yëpp euh, yegg seeguñ nit ñi ñi ngi wax daal ni muy liggéeyee donte mi ngi def ay réalisation mi ngi def lu positif waaye souvent nee nañ daal sénégalais yi liñ ciy gis seen bopp bëriwul parce que mu koy defee ak tubaab bi quoi avantage bi yëpp dafay delluwaat foofu seen ay partenaire quoi problème mooy man je dis que xam nga tey jii bu fekkee dama koy jëndee léegi affaire ba tegu na la. Mhm. dama koy jënde maa xam. Mhm. mais xam nga tey Sénégal ñun sax dañu dal si maire bi dañuy wax xam nga tey jii ab Sénégalais lu mu lu ko lu ko impacté wul directement naa suma sama si sama bopp. Mhm. tey boo def benn affaire fële science xool ne amu si ñaar dërëm dinaan mais gisuma sama si sama bopp. mais nañ xool man li ma réalisé. par exemple. moom laay wax fi au niveau de xam nga wax nga yoo xam ne rek yàlla ñu jàppale man j'ai dit au maire ba ma ñëwee bu dara amee buñ nañ bàyyi individualité individualité mooy yàq ab dëkk ma am cent mille francs ne naa jox siyaas dix mille jox kii dix ma jox dix ma cent mille jeex ëllëg mhm. du ma réalisé dara si dëkk bi mais naa leen privilé dix mille laa defal benn stade stade bi tey yox gépp ko bopp mhm. mais tey jii bu fekkee stade bi da nga toog ne mais sa doom mën na si gis sa bopp keneen mën na si gis boppam donc les projet du président je pense que ñu ñëpp bu paree war nañ see mën a tey teel pare sa voyage yi na yomb nit ñi dem ñëw mais tey Sénégal rek ngay gis par exemple Sénégal mën ngaa xëy fenn da a daw a daw bi mhm. mais loolu pare mën ngaa jóge dëkk dem ab dëkk ñëwaat sa dëkk si bés ni mu amee Europe et que Europe ay kilomètre kilomètre ngay déplacé ngaa dem dox fa soxla ñëwaat fanaanaat fi nga dëkk mais gisoo ni léeg-léeg tubaab bi ñoo ciy gën a avantage yow waaw non xam nga projet yi xam nga mooy li ma expliqué suñu ñun ñëpp ay ay techniciens lañu wala nangal et tout am na projet yoo xam ne tey jii du tubaab bi parce que tubaab yi ñoom ñoo ñu raw si niveau boobu lii man li ma. parce que tubaab bi lu ñu lëkkaloo ak yow ñoom seen intérêt la ñuy xool. waaw non dëkk bi moom nit ki kenn du liggéey sans sans sa intérêt mais nañ xool tamit intérêt bi Sénégal di am après. Hmm. Sénégal nañ cultiver foofu ne tubaab bi am na si intérêt parce que dafa am loo xam ne moom laa dañuy faxee li ñu naan nañ ko def mu doon win-win 50 pour cent 50 pour cent. 50 pour cent 50 pour cent mooy problème bi. parce que souvent ce n'est euh, ñoom ñooy am le plus. loolu loolu la nit ñi di kaas. mooy li expliqué. dama ne ku nekk na nga xool sa intérêt lan la si mhm. tubaab sur le plan financier mën nañ si am si intérêt boo xam ne que mais ñun à la longue nañ si dem ba am si li xam ne tubaab bi ak pour amoon na mhm, à la longue <laughs> kon ñu jàppee ko noonu waaye ba tey euh, monsieur le maire euh, tamit dinaa la laaj comme yéen da ngeen yor maire yi doon maire am na seen nattangoo boo xamante ne tamit euh, maire la comme yéen mi ngi ci ci mi ngi ci ay jafe-jafe di le cas de Khalifa mm-hmm. loolu tey soo ñu doon wax rek ay kàddu ci loolu

suba xalifa justice mën na ne deful dara ñu génne ko justice mën na def na dara lii lañ koy def et tout ça mais nañu xaar ba justice bi génn parce que justice du juger si amul ay éléments yoo xam ne fiable na wala déet mhm. man d'accord ma ñaan lii sur le plan politique wala nangam et tout mhm. yàlla daf ko def dañ ko tuumaal ba tey tuuma moo am dañ ne tuumaal nañ ko ne kat def na lii wala deful lii. dañu mm. bàyyi justice bi rek mu def liggéey bu paree ñëpp lu justice bi gis ñoom ñoo ngi. ne ni mu xaw a demee moo jaaxal askan wi ak tamit comme c'est une première maire de mm. Dakar ñu mm. jàpp ko tëj ko noonu. ak yi ah, ci xew ah, yëpp ah, daal ne dañ ko bëgg a faqatal rek daal. moo tax man moom jàppee ma ko noonu parce que man li ma jàpp man sama sama xalaatu bopp la. man sama xalaatu bopp la jàpp ma en tant que politicien wala nangam et tout je n'ai man maa nit koo xam ne. maa gën a respecté donc un opposant loolu yow yëpp xam nañ ko sax man ku may mhm. opposé sax da ngay foog ne doon sama xarit nga wala nangam mhm. ku nekk da nga am ay conviction ñëpp mënuñoo bokk ànd fenn mhm. Khalifa il a le droit de dire que je suis pas président loolu am na droit def ko et tout mais comme niñ ko wax dama bëgg lii man daal man lu nekk si waxee justice wax fa dëgg yàlla su ma si waxee tamit damay bañ a sob koor mais ñaa ngi koy ñaanal daal moom kay bu doon sama balaa ni ma ko yéene bu doon sama wax tey ma gën dem fanaani ko ni billaahi parce que nit ki waroo mën a yéene mhm. koo xam ne donc mu ngi sa ay tolof daal parce que mhm. bi ñun ñëpp a fi nekk mhm. tolof tolof mën na dem nit et tout mais li ñuy ñaan mooy ñaanal ko yàlla rek yàlla dimbali ko. ba li mu mhm. nekk ni mu génn sax jàpp. d' accord te d' accord nga ni daal sa président du ci leen daal kon <laughs> kon baax. ba tey man na kon ma bàyyi la rek xam naa nga. tàggatoo joxe sa kàddu gu mujj waaye ci kàddu gu mujj googu tam comme mm-hmm. dañ nekk si mois de décembre xam mm-hmm. fin d'année di waaju dugg si at bu bees tey euh, boo doon jox sa population ñi lay seetaan ay li euh, lay souhaité meilleur vœu daal ak comme à part seen réalisation yi ngeen jot a mm-hmm. def lan ngeen leen pareel ci nouvel an bi waaw euh, comme li nga wax rek xam naa dinañ si ñëwaat parce que ñaan nañ yàlla bu fekkee donc ñaari at yi passé arrêté wuñu ko les jeux d'artifice yi ñu doon def

Mm-hmm. àndax nit ñi si li xam ne donc moom lañ leen di wal pour réaliser. parce que mm-hmm. boo xoolee lañ doon liggéey Saly ci 2018 bu ñu paree ba voté budget bi nañ xam ne. Mm-hmm. suñu budget bi dañ ko def sax pour dañ naan un budget à caractère social. parce que investissement ñun presque dépassé nañ ko li ñu waroon investi investi nañ ay finition lañ nekk. mais si budget bi dañ def pour jàppale askan wi. jàppale leen seen i jafe-jafe yi xam ne mënuñu dund si biir kër yi. donc xam nañ ne dëkk bi dafa metti tey jii nag lu mel ni maire moo war a mën a ñëw jàppale ay population mhm. di souhaiter ñëpp maire ba anticiper. Mhm. waaw waaw ah, waaw waaw <laughs> ah, ñaan 2018 mhm. bii ñuy dugg bu na naqari comme ni olof yi wax yàlla a neex 2017. dëgg ah. la yàlla defal ñu sutura. defal ñu xéewal may ñu wér-gu-yaram parce que nit ki wér yaram moom la war a mën a ñaanal boppam ba su fekkee wér-gu-yaram lépp a xaj na ndaw yi amul liggéey yàlla may leen liggéey. ñi amul jëkkër yàlla may leen jëkkër. benn eh. waaye dama ne ko ñeem mu ne ma jigéen ñi rek ngay ñaanal ma ne ko mais jigéen ñi ay góor ñoo leen di takk. <laughs> waaw boo bu ñu amee jëkkër donc ñaan nga góor ña ngay jabar ah, c'est évident <laughs> uh-huh. donc euh, di ñaanal ñëpp daal atum jàmm mm-hmm. atum nga yoof yàlla def fii Sénégal yalla def fi xéewal plus particulièrement donc Yoff tamit yalla def ci xéewal bu ñepp and nek ben liggéey pour le développement de Yoff amin machallah amna solo kon tag sa cadre gu mujj rek bu dé am na leneen loo ci waaw di remercier ñepp ah, di remercier ñi xam ñoy ñooy seetaan mais tamit di defal amna lo loo xam il faut ma def une parenthèse mm-hmm. def mention spéciale à Yoff mbolo TV wax fa dëgg yàlla parce que yéne ngi tax nit ñi tok ci ay salle mm-hmm. ñi xam donc mënuñu génn seen ay kër mënuñu dem si manifestation di xam mm-hmm. lépp lu xew ci Yoff tay jii Yoff événement bu fi am képp ku dëkk Yoff di nga koy gis nañ seen avant première ni nga koy koy defee mhm. gis nañ donc leneen ni nga koy defee ñun tey maire ñu leen félicité parce que mhm. gis nañ la collaboration parce que am na ñoo xam ne sax dañu seetaan télé bi naan siyaas Mouhamed Refat. waaw mais bu ñu xamoon siyaas ni mu ñuy <laughs> ni mu ñuy sànni sonal na leen nag lool sax. ni ah. <laughs> tamit di ko félicité ah, parce que il est en train de li li yokk xam ko woon. mooy li ma wax ñun daal maire yi lépp lu ñu mën pour développer seen télé bi. Mhm. dinañ ko def ñu di leen xaar tamit yéen ngeen def ñu ay proposition yoo xam ne dañu mën gën a jàppale. seen liggéey parce que. tey liggéey bi xam ne donc moo am siyaas di ko def et tout am na ñoo xam ne dañuy toog fa naan siyaas mais jox nañ ko xaalis ba mën naa déwi tuuma mhm. joxuñu ko dara mais dafa xam ne mhm. li muy def askan wi la koy defal te waaye ñu ngi si gis seen bopp donc mhm. yéen télé bi yu leen ñaanal rek yàlla dimbal leen ba ngeen dépassé fi ba àgg si yu mag yi parce que yow war na mën a am télé boo xam ne tey ji day def comme ay direct yu bëree bëri gis nañ commencé ngeen si mais di leen félicité leen encouragé di leen wax ne tamit liggéey moo demee noonu. bu leen déglu nit ñi. saa saa nga nit ñi fii dëkk bi xam nga lañ gën a mën mooy critique yi koy liggéey. waaw il faut prendre léegi nag dafa am ñaari critiques les critiques yi xam ne donc da lay jëmee kanam jël ko nga apprécier nga dem mais critique yoo xam ne pour critique la. bu leen leen déglu avancé travail yàlla jàppale ba fi mu nekk bu ñu laa ñëw déwén ngeen dépassé waat fii macha allah ñu allah kon monsieur le ministre maa ngi lay jaajëfal <laughs> sant ak ngërëm na la di lay remercier ci dalal bi ñu dalal rek ak temps bi ñu accordé <laughs> kon euh, ñoo ko déggandoo dégg ngeen rek nag euh, suñu invité tey nekkoon euh, monsieur le premier adjoint au maire Abdou muy rek premier adjoint au wu monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen waxtaan bu am solo bi nga xamante ne indi tey yaakaar naa ni boo leen ko dégloo dina am lu bari loo xamante ne di ko ci jëlee maanaam ci ay kàddoom di ko ci jàngi itam kon duñ def lu dul di ko jaajëfal waaye yéen itamit di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi ni ñu koy defee ak yéen saa su ne rek eh, di am mbégte lool nag di jàkkaarloo ak yéen saa su ne di leen dig daje rek eh, ci yeneen i jotaay cant ak ngërëm ñeel na leen merci